njiitu réewum Sénégal joxe ndigal ngir ñu fësal rapport yi nga xam ne ni moom moo tukkee ci kuréel yi nga xam ne ni ñoom ñooy saytu alalu réew mi ba tey OFNAC toogul benn yoon gannaaw bu mu fësalee rapport bu atum 2018 bu atum 2019 2020 ak atum 2021 fësal na rapport bu atum 2022 bile rapport nag jot naa def taxaw seetlu ci guerre ak nu ñu yoree alalu réew mi ba tax na bëre na ci ay yi nga xam ne ni jot nañ cee joxoñ baaraamu tuuma gannaaw bu ñu defee seen taxaw seetlu fukki rapport d'enquête ak ñett moom la ñu daal di jëbbal tribunaux de grande instance yi gannaaw bu cour des comptes fësale rapport am ci weeru août ci atum 2022 ci ni nga xam ne ni moom la ñu yoree woon alal bu ñu wuti woon ngir jàmmarloo ak mbasum coronavirus bi of nag daldi di seetlu leneen lu tey xel jëm ci wàllum marché bu ñeel ni nga xam ne ni moom lañ doon yóbbee ceeb yi ci gox goxaan yi loolee nag ñu amal ko gannaaw bi nga xam ne ni Guy Marius Sagna ak docteur Babacar jóob daal di nañuy def plainte yóbbu ko ca nag gannaaw bi nga xam ne ni seen i enquêteur def nañu seen i enquête ba pare ñu fësal ci ab présomption d'escroquerie bi nga xam ne ni tudd nañ ci Demba Sy ñu gën koo xamee Diop Sy mu di député ci pencum ndaw réew mi ak doomam mii di Mariam Diop bu weesuwee affaire turu Prodac Serigne Bassirou Gueye ak i ñooñam jàpp ni am na li nga xam ne ni ay yoon war na ko mën a leeral moom it ay maire yu bëri yi nga xam ne ni jot nañ leen fa joxoñ baaraamu tuuma ci wàllum foncier ak wàllum administration maire bu Ndindi bu Fawoon bu Pekes bu Sindia ak yeneen i maire yi nga xam ne ni tudd nañ leen ci bile rapport a gannaaw bi nga xam ne ni yóbbu nañ dossier yëpp ci tribunaux de grande instance yi ña nga xam ne ni ñoom lañu ci tudd yoon mën na leen woo ngir déglu leen ba xam fu dëgg féete waaye bu ñu sukkandikoo ci loi bi nga xam ne ni moom la ñu voté ca pencum ndaw réew mi ña xam ne ni ñoom lañ joxoñ baaraam tuuma mën nañoo fay alal bu ñu jàpp ni moom lañ luubal